ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi wala si biti réew a jot moo leen vidéo boo xam ne dugal a xam li nga kii jërë jëf di rafetlu baax a baax a baax a baax ànd beeg seen site euh, Tawfekh Production jamono yi ñuy wax ak yéen nag ñu ngi fii ci Madinatu euh, Salaam 17 euh, avril 2019 fas yéene màggal dajeeg Serigne Saliou Mbacké ak Serigne Béthio Thioune jaamu Serigne Saliou Mbacké ren mu nekk 73 ans. de compagnonnage bu jox diggante Serigne Saliou ak Serigne Béthio Thioune boo nee Serigne Béthio ni lépp ak cant boo nee Serigne Béthio ni lépp ak sant Serigne Saliou Mbacké Khadim Rassoul wax dëgg yàlla ànd ak seen site laay wax seen site préféré Tawfekh Production ak euh, cant gi ren ji ngeen fexe dund lépp ci événement bi maanaam dara dara ci ëpp moment bii ngeen gis nag mooy ndékki yi boo nee ndékki yi nekk un moment crucial un moment phare jëm si santub Serigne Saliou Mbacké Khadimou Rassoul tey jii 17 avril 2019 waaw ni borom jannatu jërëjëf ay borom jannatu jërëjëf Serigne Saliou lu ñu tey day dama luum waaye lu ma luum luum du ma tee sama sang bi maa ngi koy ñaanal te di ko ñaanal sàkku yàggoog jamono boole ko wér ci barke sëriñ Sall bi sëriñ Béthio day tey sëriñ Béthio tey sëriñ Béthio moom day ñëpp ko war a sant waaye dama cee raw maa ci raw bu ne nag ak ndof la waaye bëgg naa ndax fi mu ma jaarale li mu ma defal ni mu ma def fa mu ma jëlee fii mu ma indi ak fa mu ma yóbbu ak a ak a jombe waaye jëmmam jee jombe tey saa su ne bu ma neexee xandaalu waaye tey bu ma neexee xandaalu ndax li tax mooy dama ami mbokk ñu dëkkee di ñëw nag waaye tey dañoo ñëwee noo xam ni musu ñoo ñëwee nii te ñoom ñëpp ñu teew fi nag dama bokk ak ñoom deret ñu xam foofee ñu bokkoon nekk ñu xam tey jii fii ma Serigne Béthio yóbbu waaye tey tey bu du woon ak Serigne Béthio kon loxo dem gémmiñ te du ànd ak tibb wallaay tey bu ma taxawee fii di ndamu ak a sago damay sant sëriñ bi jubluwuma ki sax nag ndamu ndax booy ndamu day fekk nga defal sa bopp waaye man mayuma sama bopp man sëñ Béthio ma defar te moo ma defar waaw soxna Dia nee na sëriñ Saliou nee na diggante cant akub tiitar dañoo nuroo kaw lépp te ku dul moom Serigne Saliou mënu ko ràññale te mooy sëñ Béthio waaye de li may dëkkoo di saxoo di ñaan Serigne Béthio mooy man de bëgguma xamati te bëgguma beew waaw ndax xam naa kii ma defal te mooy sëñ Béthio moo ma defal te moo ma defal man doomu séeréer ak pël laa juddoo doomu séeréer ak pël foofee laa juddoo diggante boobee laa juddoo waaye Sëriñ Tuubaa daf ma faa jaarale jaar jaar la ci man waaye man mooy sama borom te mooy sëñ Béthio waa àdduna ñi may seetaan mbokku taalibe yi sama mbokki deret yi maa ngi seere loolu ñëpp sant gi ma sant Serigne Bay di ñaan ak taalibe bu ànd ak ngor gu ma ko toppee moom sëñ Bay barki Serigne Saliou maa ngi koy sant bu wér luum naa de billaay luum naa ndax gii sag gii ndam doon sëñ ba ci jombe na